borom Marodi borom Gé borom pikin borom Pikine laa invité tey bi nga xamante ne def na ay jaar-jaaram ci biir pikin ak lu mu def ci biir Pikine mention spéciale def carrière ba mu jeex maanaam carrière amul lu ñuy sikk sàkk ci Baboy ak dayo bi nu mu toll ak ni nga xamante ne mooy yaram bi mooy amul graisse bëriwul graisse macha allah champion la amul jëm jëm bi taxul deme noonu fan la doon noo bëre fan la commencé bëre. Baboye nag tey ñu war a waxtaan ak moom ci làmb jaar jaaram ci làmb ban at la commencé bëri ak fi mu jaar nu mu méttee parce que ba muy nekk Pikine ay champion yu mag a mag a mag ñoo fa nekkoon ay champion yu mag Baboye kenn yaakaaru woon ne Pikine dina fa génn ndax euh, yaakaaruñu woon ak nu mu tuutee poids am mu sa mu sam cent kilos donc loolu mu nekk lu jafe mu nekk lu jafe tey ñu invité ko nag war ko dugal tey ñu waxtaan ak moom ci lu bëri. làmb démb ak làmb tey donc loolu am na importance xaaral ma dugal tuusam ndax dama koy bàkku tey waaw. waaw. voilà. léegi yaa ngi lay eh, dégg naa sa connexion di jaay taal jéem a jaay. non eh. non man naa gaa man kan collection man dinaa jënd collection man ma sama biir kër. xaaral. waa ci loo ne. xaaral bala maa dugg yow ci waxtaan bi. fii bu dee problème. maa ngi lay ziar Omar Sakho maa ngi lay ziar bu baax. di la jox sa wàccuwaay Mburodi. man maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu dila la ziar. vraiment gannaaw ba ma sant gannaaw ba ma uh-huh. yàlla julli seen bi sallallahu alayhi wa sallam. Uh-huh. sant samay ñaari waajur. macha allah. di sant sama sëriñ Mouhamadou abi mbake uh-huh. mi salminan onon bandiraɓe halpularen foof. di nuyu sama mbokk yëpp di nuyu waa Pikine Parcelles. Géejawaay Golf West Foire ñëpp maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. nuyu waa Touba. waa mm-hmm. Italie France États-Unis ñëpp maa ngi leen nuyu. Mm-hmm. di nuyu sama waa Géejawaay sama waa kër yaay ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp nuyu ñëpp àdduna ngi nuyu ñëpp. maa ngi nuyu ñëpp. di sama njaboot yi ma tonkal. di nuyu sama soxna. nuyu tamit sa soxna di nuyu ñëpp. di nuyu sama xarit di profité tamit. Mm-hmm. di jaale ñi nga xam ne ñoom la seen ñii seen waajur a génn àdduna. Mm-hmm. ku mel ni Modou Lo maa ngi koy jaale. Mm-hmm. di ko ñaanal yal na yàlla xare àjjana papaam. amiin ñaanal suma grand tamit suma mag bi nga xam ne mooy Basirou Niang. Rakumon Niang. maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare àjjana moom tamit ku baax la ci man ku sonn ci man la ku sonn si sama carrière la. juddoo Pikine màggee Pikine vraiment bëggoon ma lool taf ma ci xolam. yàgg ma mm. conseil madame yàgg ma defal lu ne ci àdduna kon maa ngi koy jaale Mor Niang di ko mm. jaale famille yëpp ak leen ko jaale di jaalewaat Mamal Ndiaye mi nga xamante woon aussi tamit mooy président Fass soxnaam daa génn àdduna waaw waaw waaw sànq yaa ma ko doon waaw waaw ngi koy jaale tamit Momar nit ku baax la di ko jaale soxnaam di ko jaale tamit Aziz mm. Ndiaye la di ko jaale bu waaw sa patron di ko jaale mm-hmm. di ko jaale ñëpp di ko jaale nit Sénégal ak sportif yëpp parce que Mamal Ndiaye def na def na lu ne Fass defal na ñu koy mm-hmm. jaale tamit Mbaye Gueye di ko jaale Moustapha Gueye Gris Bordeaux ñëpp mm-hmm. di ko jaale mm-hmm. waa Fass yëpp di ko jaale Ahmed Omar maa lay nuyu di la ziar Baboy bu ñu ba pare euh, Baboy naka nga gisee réew mi nu mu mel ak coronavirus bi nga xamante ne am na fi waaw li ñuy wax rek mooy gannaaw bu nu sante yàlla julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam coronavirus bi ñëpp gis nañu jéego yu mu def waaye gis nañ tamit le hmm. président de la république motuwaay yu mu si jël. Hmm. ndaxte neexul ban jël na ci ay njabootam motuwaay yu wér péng. Hmm. waaw taxaw na ci réew mi. tey rek dégg ngeen déclaration nu mu def bëggul réewam am benn problème moo tax tey boo xoolee tey nu mu waxee couvre-feu bi sax yokkaat na ko pour lenk rek pour dimbali njabootam yi. xam na ni njabootam yi ñoom góorgóor rek nañu xam coronavirus bi nag. comme ni ñu ko waxee rek. may félicité ministre de la santé ndaxte Abdoulaye Diouf Sarr suma xarit. Ah. yàlla taxaw na taxaw bu rafet. Mm-hmm, ak mm-hmm. képp ki nga xam ne doomu sénégalais nga gis nañ luñ ci taxaw muy sportif yi mbërum làmb yi ñëpp ñaw ñëpp maa ngi leen di félicité mm-hmm. ndaxte àdduna nii la mu li wax rek kilifa diine yi kilifa aada yi ñëpp sunu mbokk chrétiens yi ñëpp lu may wan ni sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mun nañu coowoo de mun nañu xuloo mun nañu kërën-kërën mais bu dara xewee rek ñun ñëpp dañuy bokk ndey bokk bàyyi kon boog na gars yi gën a déglu rek na sénégal gën a déglu lu médecins yi di wax parce que nit ku ne ak métier la ñun xëy na làmb ci nekkoon suñu métier làmb nañu xam mais ñi ay docteur nañu lépp lu ñu wax rek nañ ko def ci yar ak teggin ñu moytonte di takk ay masque moytu tamit lu wax ñuy raxas loxo yi di set kon ko ñoom suñu jàmm rek nañu bëggal waaw loolu rek la Omar. Baboy naka nga gisee président ibi war na jàkkee ñi ñi di julli normal. waaw président xam nga boo gisoon sax mu tëj jàkkee nit ñi di wax xëy na nit ñi comprendre ñu mais wér gu yaram rek nit ñi la bëggoon parce que l'islam ci boppam wax na sax ci boppam ñu mhm. tolof tolof bu amin nanu kenn ku nekk toog sa kër nga def ko comme président ñun xamoon na ne du tëj jàkka yi lu yàgg parce que président julit la nit ku baax la nit ku jullite la te li mu ubbi jàkka yi c'est très important loolu tamit am na solo ndaxte tamit kuy ñaan yàlla da ngay dem ci place ci néegam nga ñaan ko mhm. kon donc mhm. loolu xam nga tey kilifa diine yëpp kontaan nañ ci Sénégal yëpp kontaan nañ ci ñëpp ci kontaan waaw lii dal koom euh, yàlla na woyof trop ci ci kawam parce que vraiment président nit ku baax la te yéene Sénégal jàmm te mu ngi def fulla ak fayda ak jom waaw. jërëjëf Baboy ginnaaw ba nga waxee lu rafet li nga xamante ne mooy fi nga dëkk fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga màggee fi la yàlla may teraanga fi la la nit ñi xamee ñu ngi kontaan ci question yi nga xamante ne répondre nga ñu ko donc vraiment tey nag kontaan nañu am ak mbégte di jàkkaarloo ak yow. nga def lu nekk ci làmb kenn dootu ko nettali nga mag marqué sa empreinte fii tey ci ndakaaru rawatina Sénégal ñëpp xàmmee la rawatina fi nga dëkkoon muy pikin nga juddoo fa yaroo fa màggee fa def fa lu ne mais Baboy ban lan moo ko dugal ci làmb waaw Baboy pikin la juddoo màggee fa juddoo fu ñuy wax Daaru Ñàngoor Mm-hmm. Euh, làmb daanaka bu ma nee lu ma ci dugal. Mm-hmm. balle Bèye numéro un moo nekk mbër. Mm-hmm. ma faawoon ko nekk xale. mais li ma gën a dugal ci làmb boobu daanaka xaw ma Balla Bèye. boobu dama doon dégg turam boobu miinu ma ko woon. boobu sam papa mu ngi ma yóbbu woon Gorée. bu ma yóbbee Gorée ma nekkoon gore lu yàgg maak suma grand frère ñu nekkoon foofu di liggéey. ma ñëw benn jour euh, Pikine ba ma ñëwee mbapat am foofu. Mm-hmm. benn mbapat koñu cité police. ndeysaan maa ngi ñaanal sama papa Alioune Sarr yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin mu benn mbër bu ñuy wax alaaji coor ñëw daan ña nekkoon ci mbapat ma ñëpp. Mm-hmm. ma ñëw bëreeg mbër mi daan ko même pas une minute rek pas Alioune Sarr woo ma boo yow foo dëkk ma ne ko man daaru laa dëkk mu ne ma yow comme Balla bi mm-hmm. foofu la laa commencé fekk na après may bëri mbapat nag. dem naa fi ndar. Mm-hmm. dem naa fi ndar àndoon ak ay mbër yu bëri ñoom Leyti Fall. ñoom mm-hmm. Papa Ndiaye Saawaañ. ñoom mm-hmm. ñëpp daanaka bon demee foofu mbër yu demoon yëpp man dong. maa ci ñëw daan ña fa nekkoon ñëpp ndar. indi trophée yi nekkoon yu ñu tegoon ndar yëpp def naa fa daanaka quatre mois ou cinq mois. maa ngi nekkoon goxu mbaa goxu mbaaj bëri naa fa maa ngi nekkoon soor fa la daloon. colonel Bambala fa laa xamante woon ak moom ndeysaan may bëre ndar. ndar def naa fa lu ne. bëre naa fa ay at ba nu ñibbisee. musuma sama sama yaram musul laal foofu suuf. final bi ma fa mujjee bëre kaddu gi laa ko bëreel ci terrain sor. bëri naa fa ak Xaadim Ndiaye bëri naa fa ak Mampit Mar Diaw bëri na daal ndar li ma fa def ma fa nekk ci mbapati nag. Mhm. di bëri ay mbapatu faas ay tëngeej xam nga bëri fu ne. mu bëgg ko nag nekk nag vraiment waaw. Mhm. d'accord Baboy am uh-huh. njëkk a bëri mbapat. kañ nga njëkk ak foo ko bëree. kan laa njëkk a bëreel mbapat bu ma fàttaliku dëggantaan. a kañ non pas kañ. Euh, kan nga njëkk a bëreel. ban année parce que mbapat seen mbapat bu njëkk mooy ñëpp daan bëree. fàttali ban année Omar Omar Omar jàpp ma Omar jàpp ma année boobu de yàgg na saamu karot. saamu caaro yi waaw. saa saamu karot laa njëkk a bëree. mbapat ka caaroy yi. ba ma bëree ndeysaan ndam si yàlla si père Yéli Jaxate maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. père yéeli mu ma ko moo ma benn jour mu ne ma maa ngi fekk euh, Serigne Ndiaye mbër naka a ah, gis naa benn booy bu bëre caaroy de booy boobu dina doon mbër de Serigne Ndiaye naka waaye xanaa chaque jour nga wax yow mbër dina kii mbër dina génn fi dina génn fi hmm. mu ne ko ah mu ne mu ko booy bi ma gis nii mu ne mu ne ko am na fit am na jom ta gaaw moo tax bis ba may bëre ak Serigne Ndiaye combat bi motul sax presque une minute waaw d'accord léegi ak mais il paraît que dégg naa bëri nga sax kaaw caaroy de arène. kaa caareen waaw caareen dégg fa arène. ak bo ak booy ceeb ak six mille franc lañ tegoon. saaku ceeb ak six mille franc. ay Omar yow. <laughs> moom de. waaw yàgg euh, loolu. yàgg na damay euh, Baboy. ban année nga njëkk a mhm. bëri ban année laa njëkk a bëri ban année. jàpp maana bi de Omar fàtte naa ko. bëre dóor maa ngi ko njëkk a bëree aaren aaren caaroy géej maa mbartin mooy bi ma lay wax nii. waaw maa ngi mbartin ñoo ah, xaw ma bu nekk caaroy géej maa ngi mbartin keroog euh, man ak Thierno Ndiaye ñoo ànd keroog ñoo ko moo ma tuusal euh, bés boobu maa ngi mbartin ñu ngi bëri mbartin wër ma ndomb moo rëbati ko kott ko daaneel ko moo wax la ba na ne ñu ko bëree rek. ah. 92. 92. waaw wax nga dëgg 92 la waaye. voilà jàpp nga année bi 92. waaw 92. sa deuxième. Euh, hmm. combat boobu yaa ko daan wala dañ la daan. sama deuxième combat maa ko maak Samba Diagne. ñu ko bëri arène. Samba bu waalo boobu. boobu ndar laa jóge sama mag. Samba Diagne bu waalo Samba Diagne bi wa mu ngi nekkoon Mermoz la nekkoon. ah Mermoz Samba Diagne te gàttoon ko xees waaw. bokkul ak Samba Diagne bu wàll. déedéet bokkul ak Samba Diagne bu ma moom. ok. Mhm. Mhm. waaw après ngeen bëre. après ñu bëre ma daan ko. ci leen mhm. ma tëggal grand combat sama papa Ahmed Dieng tarafa mel ni Elisabeth Diouf. maak Saliou Lo waaw. ok non avant nga duggaguma ak yow ci grand combat yi nga combat yi ndaw la spécial. ñaata spécial nga mos a ndaw. benn spécial laa mos benn spécial. muy mag combat bu ndaw. ñetti combat benn yoon. musuma bëre ñetti combat benn yoon laa mos a bëre ah kii benn. Ah. Euh, combat bu ko benn euh, deuxième combat laa mos a bëre. nga bu njëkk premier combat moom deuxième combat troisième combat. waaw ak spécial. benn benn deuxième combat laa bëre après bëre grand combat. kon loolu yàgg na ci arène comme dëgg gars di wax léeg mais loolu yàgg na ci arène. Mm. ok. Mhm. benn premier grand combat koo ko bëreel. Zallo. Zallo men. Mhm. jour boobu nga njëkk bëre grand combat. boobu laa njëkk bëre ci stade Iba Mar Diop mais grand combat bi ma njëkk bëre Martin la. muy Caaroy ah, Géej arène Massalika. ci stade Iba Mar. Zallo laa njëkk bëreel. trophée mhm. Marie Isabelle Diouf sama papa ah. Ahmed Diène moo ko tëggoon. yaa ku daan. maa daan. ok noo ko daanee. Zallo danoo bëre. mu mu mu wër ma ndomb. donc koo wër no ba mu wër waaw dama ko wër ndomb moom dama bëre mu daw di ma song jël loxoom xoolal ko sama biir kii wër ko ndomb ba ma ko wëree ndomb après ma bugg ko dóor si suuf. ok nan laa ko daanee. noonu nga ko mu nekk jël bu rëy. boo xamante ne Sénégal yëpp ñu ngi koy fàttaliku. Eh, Baboy mm-hmm. ba nga bëreeg Zallo ba pare. Euh, dégg naa euh, après ko bëreel. ba bëreeg Zallo après yaa xam naa maa ngi bëri Youssou Faye. Youssou Faye bu fan. Youssou Faye mi ngi nekkoon écrit séeréer waaw écrit séeréer Youssou ok. Hmm. ku daan. maa ko daan. noo daane. Youssou Faye dama ko dama ko chargé. tibb. ok hmm. Baboy. dafa amoon coow bu mag li la gën a def mbër li la gën a def mbër dafa amoon benn mbëru pikin yi pare que bu ñu daanoon mm-hmm. après jël boobu métti yëpp waa Pikine du ma tudd turu mbër bi mm-hmm. nag léegi ba mm-hmm. gars yi dégg naa yi pare que da ngay dem réunion nga yëg ci kaw taaw bi daal di aalu ne li ngeen ngémbe kii boo le ma ko ngémbe ma daan ban mbër la ak lan moo indiloon loolu waaw xam nga àdduna moom. Mm-hmm. dëgg rek dëkk rek mooy mujj. wallaay moo wax la tey ci vidéo bi ne. Mm-hmm. Euh, maa ngi ñaanal suma papa Njaga Caam. Njaga Caam. suma xarit. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin amiin. yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yàlla xare àjjana ndaxte doomu pikin bu dëgg la woon bëgg pikin jàppale képp kuy doomu pikin. képp kuy xam naa question yi ma lay laaj question yi ma lay laaj dina la jaaxal. ndax fekkuma sax mooy ci làmb mais dama la gëstu. waaw moo voilà moo tax nag. Mhm. question bi nga wax ni loolu loolu nga wax ni këram la xewee woon. Mhm. Euh, boobu man mën soor Diop. Ndiaga mhm. Diop ñoo nekkoon regroupement kër Ndiaga Thiam. Mansour di bëre ak Ibou Ndafa. mooy ba ñuy wax ni daan na ko daanu ko. ma ma jékki saa yi ne ko grand mu a ma ne ko li ngeen defal kii tey man mboolem ko defaloon ma daan ku ci làmb. papa papa Diop ne ma noppil mu ne ko bàyyi ko mu wax. ndax kii mhm. gërëyee la. waaw kooku Ndiaga Thiam moo ma ko waxoon kër Ndiaga Thiam maa ko waxoon. boobu nag ba boobu ba nu mu ba nu mu génnee mhm. loxo musul jóg ci man. conseil musul jóg man ma musul doon mbërëm. te lu ma xewle. mu mhm. jàppale ma taxaw ma dama koy ñaanal. ñaanal njabootam yàlla na yàlla def barke ndax ba muy génn àdduna. amiin ah, ma fekkoon Chine mais ba mu ñëwee dem naa jaale ko. dem ci bàmmeelam ñaana ko te fu ma dama koy ñaana ndax kooku. dafa sori woon ci man. ci lu bari daf ma ci dimbali ci xel ci conseil ci waaw. Hmm. mbër moo mbër moo métti ba tax na ñëpp koy bëgg ñëpp koy sopp ñëppay jàppale mbër. bëgg mu am hmm. ndam. rawatina gox bi ñu dëkk. Hmm. baaboy après combat boobu dégg naa. ko ak mbër ma lay wax. Euh, bëri naa Cheikh Mbaba bëri nañu ma daan ko. jël bu gaaw te yomb na wala méttiwul woon. non non sama combat Cheikh Mbaba mu combat bu yomb la parce que dama ko gëdd. Mhm. dóor ko mu daw di ñëw ma bal ko wër ko ndox mu buddi ko ba ci dóor ci suuf ñibbi. combat bi moo yomb maanaam histoire bi moo metti woon ba pare combat bi yomb la mu waral loolu. waaw euh, combat bi xam nga boobu. maa ngi bëre waane ak suma li la li la li la boobu maa ngi dégloo ak ba nga yéeg ci kaw. waaw boobu teel bi dóor waaw boobu maa ngi bërewaale ak loolu. parce que suñu mag la bëreloon. Euh, daan ko loolu maa ngi ko doon euh, bërewaale taxi ak li ma waxoon sama kàddu bi nga xam ne. Hmm. demoon na après demaat biro Ndiaga Thiam ne ko man mbër laa ku ma puus ma dem ku ma puusul ma dem loolu bi nga xam ne grand bi ne ma man bis ni ki tey dinaa la jàppale. waaw loolu nag ma dem bëréwaale ko moo tax combat bu mu amee ba ma mhm. bëree ba pare ci guddi ga këram laa jubale na ko grand am na lu ma la waxoon lu yàgg mu ne ma dëgg la waaw keroog maanaam da nga nekk comme bëri ko ci mbàttal puus mu dem ñaar puus mu dem parce que bëggoon puus mu dem voilà parce que te gëm naa sama bopp te ragalu ma woon ok léegi après nga continuer nekk ci demande bu baax waaw rek di parce que ay onze combats onze victoires léegi après jékki-jékki baaboy dem tukki lu tax waaw ma dem Italie. lu tax loolu boobu làmb ji. boobu la ko waraloon làmb ji moo xawoon na. jaxasoo da nga nekkoon mbër kaamil làmb ji. di dem mm. tukki lan moo waraloon loolu. ak ci dugal. boobu Gaston moo ñu parce que boobu Gaston xam nga moom. parce que boobu Gaston daanaka moo yor làmb ji. ku mu tëggalul doo bëri grand combat. moom la fi yàlla tegoon. moom moo hmm. fi nekk vraiment def ci làmb tamit lu rafet di ko di ko nuyu de passage di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm ak njabootam. moo ñu tëggal ñu boobu gàmm ci Papa boobu boobu su hmm. su ma la su xarit la parce que boobu maa ngi cour Sainte Marie de ay doomam ñoom ñëpp nekk suma xarit di jàngee cour Sainte Marie de Hann ma nekk fa nuyu waa cour Sainte Marie di nuyu ñëpp ah loolu boobu nag sama ma nekk foofu xamante ak ay doom mu nekk suma nit di ma conseil di ma digal lu baax ma ne nag comme lii la wax naa tukki naa tukki ci laa dem tukki ba ma demee nag toog fa euh, su ma jàkkaarloog man nga xool wéeru ah. waatal maa ngi <laughs> mhm. waaw léegi nag ba ma demee foofu ma nekk fa mais li ma fa nekk waaw voilà uh-huh. léegi li ma fa nekk yëpp Omar sama xel xam nga rek nit bu yàlla defee dara si say deret Mhm. même ñi ma nekkaloon sax dañoo xam ne kii mu ngi fi Italie mais xel mi làmb rek a ci ne. dèjà ba ma demee nag suma mag suma xarit muy Mon Ñang mi nga xam ne tey jii moom la rakam rakkam ñu bas mu may conseil ne ma làmb am nga avenir si Sénégal da nga war a mhm. ñibbi si nga ñëw Sénégal nga bëri si nga liggéey. xam nga boobu alhamdulilah maa ngi Italie mais ça va très maa ngi fi doon am lu baax maa ngi doon faj samay soxla di faj samay soxla fami ak ñëpp vraiment di si am ay teraanga am li nga xam ne lu bari am na lu def fii nga xam ne moom Italie neex na moom waaw waaw vraiment. maa ngi am lu baax yëpp di nuyu en général ñëpp ñoo fa nekkaloon. léegi ma ñibbisi. non après grand bi ma da ngay. Mm-hmm. ma ñëw. Ah. waaw léegi nag après ma topp si ak grand bi ne ma da nga ñu après nag ci laa préparé ba ma ñibbi nag ñu bëri ne ma waaw dootoo mën a dugaat fii boobu amoon naa sax këyit ñu na ma dootoo mën a duggaat fii man leen lu dul yàlla neen la lii ma jëm nii muy laab mun a mun na ma may ma dem fu ne ci àdduna Mm-hmm. noonu laa gëmee déglu waxu conseil mun ñang bi ci laa ñibbisi ñibbisi léegi yow mm-hmm. euh, nit ñaa naka ngay fekkee bërigo essence nga yor xottu almet di ko foowee maanaam nga ñëw rek fekk fi Moustapha Gueye nekk ci condition yu baax nga ne nañ ma ko jox te yow loolu nu mu demee noonu waaw Omar xam nga man dafa am lu mus a nekk sama bopp man dama mus a gëm sama bopp man pour man ku mus taxaw sama kanam maa la man dama lay def lu ne. mais Moustapha ba may bëreeg moom. dama mm-hmm. am benn expérience bu ma manqué. expérience bu manqué woon mooy. non non pas àggaguñ ci bëre bi àggaguma. ci bëre ak ci bëre pa waaw paa ci ba may dem daanaka Moustapha waaw. ba may ba may dem daanaka Moustapha laa doon laaj. waaw ba may dem Moustapha laa doon laaj. waaw Moustapha laa doon laaj. ok léegi yow mm. ba ngay ñëw. Mm. yaa ngi avance biir poche. ba nga jugee daal yaa ngi avance sa mm. biir poche. dégg naa loolu. non non non non barki Serigne Modou Habib Mbacké. Mm-hmm. musuma jël avance su. Mm-hmm. benn mbër bu ma nekkee ñëw naa toog Italie. ba mm-hmm. yàgg fi sax doogo ci nen ma doogo tëgg sama mhm. combat ak Moustapha Gueye ku ko weddi na ko laaj mun ñan d'accord waaw loolu musul am musuma jël benn avance waaw léegi ba ba gars yi defee nag tëggal la yaa Moustapha Gueye boobu Moustapha Gueye nekkoon na ku xarañ ku xarañ macha allah yow nga dem perte mémoire ñëw rek laaj Moustapha Gueye la ma waral loolu xam nga boobu dama doon laaj Moustapha Gueye te boobu daanaka xaw moon luy mafia mafia làmb mafia làmb waaw da nga voilà voilà dama pertoon repère. xaw ma hmm. xaw ma lu bari ci làmb même garab sax bu ma ma sangu demee boobu xaw ma. et puis lu si pénétré bari. war yu ci amoon bari. Hmm. affaire làmb daal lu bari am ci biir. waaw boobu yaa ngi doog ñëw te ah. xamoo nu mu demee. maa ngi doog ñëw xaw ma kenn xaw ma kenn xam nga perte naa suma repère perte naa suma yoon fi ma doon dem yu bari perte naa ko. Mhm. mais moo tax nit ku baax boo ko amee rek toujours doo sonn boobu maa ngi am suma xarit bi nga xam ne tey mu ngi nekk fii muy suma xarit muy Ibou Diagne. Ibou Diagne waaw euh, après waaw waaw xam nga moom mu ànd ak man ak sincère ci ci départ bi sax moom ci biir affaire préparation dafa ne moom booy man li ma gis ni dalul sama xel quoi. Mm-hmm. cafar cafar ku ñu indi lii ku ñu indi lii ku ñu indi nga jël ma ne ko non mm-hmm. grave boobu gëm naa sama bopp boobu pour man maa mën fukki Moustapha Gueye waaw ah, gëm nga yow boobu am doole voilà am naa mm-hmm. doole xe barke sëñ Tuubaa damaa xeeba Moustapha Gueye dëgg la mais expérience yàlla nu lay dimbalee rek xam nga ma mu Moustapha daan ma jël bu rëy vraiment bu rafet ah. mm, jël boobu jël boobu bokk na ci jël yi la gën a metti waaw ndax da nga ñëw mu daal la jël bu kenn kenn foogul woon ci yow. nga jóge fa nag nekk mbërub moo léegi naa nga jóge fa nag. boo jëlee boobu nekk mbërub dof maanaam dugg ci àll bi. pendant six mois xaw ma sept mois kenn gisu la. waaw boobu looloon def boobu loo yaakaaroon moo daal wala nga yaakaaroon gaa mooy loolu. waaw boobu war cee am. Ah, euh, sëriñ. Mhm. jàpp ma lool mhm. ma xam lu ma jàppoon xam li ma yàqal mhm. xam li ma yàqal si làmb jooju yëpp ma delluwaat toog xam ci samay nit baaba xool écran bi nga jàkkaarloo ba nga rëkkale tuuti xam naa sa yaram a tàng léegi tooga rek voilà d'accord léegi bu ma jógee ci combat boobu ci laa xam lu bari ci laa xam su nit xam ni ma bëgg xam ñi ma bañ. Mm-hmm. xam ñi may jàppale te yàlla tam. ci laa amee expérience daal ci lu bari. Mm-hmm. ci laa toog waxtaan ak suma xarit waxtaan ak sumay mag su mel ay moon ñang ñun ñëpp ñu conseil ma xamal ma suma papa na Ndiaye mi nga xam ne tey moom moom njëkk a takkal ngemb. ñu ko yàlla na ko yàlla defal ci premier waaw kooku moom fu ma toll dama koy ñaana ndax sama ngénde sax xar bi moom moo ko fees moom suma xaritu papa la woon suma famille mm-hmm. suma lépp moom moom moomu njëkk wan lan mooy affaire galaaju làmb lu bari moom moo ko defal. moom Thierno Ndiaye dama ko bëgg Pikine Thierno Ndiaye. voilà bëgg Pikine ba pare nekk nit ku sincère ku dëgg. waay dugal du ci bokk. taal bi ku baax ku waaw ku mm-hmm. bëgg sax moom njëkk yóbbu ci série bi. ndeysaan waaw moom njëkk nag wan lan mooy ngemb toog ne ma nii ak nii la. xamal ma bari man. loolu la morom loolu la ma sa morom. waaw <laughs> ànd ak suma xarit Ibi Diagne. Mm-hmm. Ah, ànd ak sumay nit. ñu dem dugg ci àll bi defaruwaat ñëw. pendant ñaata mois pendant ñaata mois. non presque ay trois mois quatre mois laa toog di defaraat sama bopp. Hmm. xoolaat entraîné waat defaraat sama bopp. xool hmm. commencé nag ci laa commencé ne bu ma amee combat du ma nuyu kenn ci laa méfie ko ci laa ah, indi nag jukku mbër bi dëgg. waaw ci laa ah. indi jukku mbër dëgg dëgg dëgg dëgg. parce que lamb ku la gis ñu naan mais kii dof la kii dof la ay waa na. mbër mbër tànk neewuñu la tant que neewuñu la dof nga doo bër. Mm-hmm. bëri foo ñu ne dof nga. Mm-hmm. waaw bër. Mm-hmm. foo ñu ne dof nga doo ko doon bër. waaw booy après finalement ba nga accidenté ndeysaan. accident bi nan la bi nga defoon sooy. waaw accident bi dama demoon di seeti benn kilifa. kilifa bi mooy li ma la rek ci combat boobu wor bu ci am dafa bari ndekete ki ma àndaloon muy dem kooku supporter Moustapha Gueye la. ndeysaan tey Fass ñoo garaw. paa xam nga mais gis nga nit boo ko ëppul bopp. Mm-hmm. nga am wéeruwaay. Mm-hmm. bis boobu yàlla lu muy dogal damaa jaar ndeysaan sama sang bu baax bi sëriñ Mouhamadou Habib Mbacké yàlla na su borom yokk leeram. amiin amiin xalifa mu yor yàlla na yor ci kawam lool. ma jaar fa fekkuma ko fa. fekkuma mm-hmm. ko fa. ma faa ko fekk Modou Sow Modou Sow mu ngi dëkk Pikine. te euh, cité cité un la dëkk Modou Sow bu déggee la nga wax sax dina ko xam waa Pikine bu ñu nekkee ñu ngi si kii bi dinañ koo xam. Modou Sow dama doon fubal jamono. mënul suba lool xool ma xool ma waaw Modou Sow bi day tàng waaw day xam naa loolu day tàng Modou Sow fekk ma fekk fa Modou Sow ma ne ko maa ngi dem Linguère uh-huh. mu ne mu ne sëñ bi nee na nga xaar ko mais boobu maa mel dañ ma xabtal ma ne ko maa ngi dem Linguère waaw léegi nag sëñ bi woote rek jékki saa rek sëñ bi woo ko nee na moom ma may natt de mu ne sëñ bi woo ko ne ko ana Balla mu ne ko Balla dem na moom mu may woo mënu maa jot nee na sëñ bi insisté si loolu ne ko Balla woon dem woon dem mm-hmm. ba nu demee bay ñibbisi si la oto bi accidenté. dañu dem benn kër kër sëriñ bi ñu dem foofu kooku ne nu hmm. man benn kilifa bu wax ne ma boo demee ci kër bu la mayee soow ak këriñ bul ko jël. Hmm. léegi ndaw si ñu ñëw mu jox ñu këriñ jox ñu soow ne naana ma ne ko man day duma naan soow amu habitude naan fenn soow man mbërum làmb la. Hmm. këriñ moom soxlawu ma ko. waa ji jël këriñ bi yëpp ko soxla ma ne ko sëñ bi mu ne ma ne ko oto bi waroo ci yëpp ma ne ko ah, baax na Mm-hmm. mais ñu dem benn lingeer di ñibbi si ba si yoon rek oto bi def tonneau këpp. yow ku la ku la waa ji ba nga xam ko ba mu lay yóbbu. paa bi sama benn waay non dégg ma sama benn xarit. Mm-hmm. ndekete moom supporteru Fass la woon xaw ma ko woon moom moo ma boole woon ak. xarit boobu waa ji ànd ak yow supporteru Fass waaw mais xaw ma woon loolu xaw ma ko moo tax man la. comme léegi ba ma booleeg moom. ñu dem oto bi def tonneau. Mhm. Omar mun naa la wax nga. Mhm. keroog parce que sëñ Bamba euh, am am am kilif rek a wóor. dëgg la oto bi ba sapeur pompier yi ñëwee di dajji oto bi. Mhm. fi ma nekk dañ ko dagg. ba ma génnee sapeur pompier yi danoo danoo daw arrière. booy oto bi di tonneau dafa mel ni dafa am lu nu miiree ci sama diggante ak oto bi. ndeysaan. chauffeur bi chauffeur bi ki ki ma àndaloon noonu chauffeur bi bopp bi daa xar. Hmm? mu ga boobu daa xar yuuri di génn. maa ngi sama benn xarit bu jóge woon Italie ma dikkee. sama benn xarit mhm. moom nag tuuti rek tuuti rek moo ko la gaañu si loxo. man aw ma ci benn benn gaañu gaañu lu dul xoos bu ma amoon. Mhm. ma jóge fa. ma jóge fa ñëw fii daa amoon ci loxo bi. ak ci tuuti rek si pokotaan bi. si si bi si séwi bi ak sama loxo fii nii fii nii. Mhm. ñaari ñaar ndaw rek waaw. moom ñaari ñaar si ndaw. ñaari ñaas yi ñaari ñaas yi. dëgg ba ma ñëwee. Mm. fekk nepp sëñ sëñ Modou Habib Mbacke ñëw ne ma mm. santal santal bu baax. Mm. santal bu baax xam ne lii mooy lu gën si yow. dëgg la. xam nga foofu laa xamee ni man euh, li may li may dox nii combat bi may dox nii baaxul. mais ba may bëreeg Moustapha Gueye barki Serigne Touba Mbacke sévi laa bëree tànk sama tànk dafa deboite. waaw moo tax ko takk parce que boo seetloo. Euh, ni nga bàyyeekoo kon ku bàyyeekoo. voilà mais fële que dégg naa sax même ba ci biir combat bi am na njëkk yoo xamante ne biir Pikine nañ ko jëlee indi te Fass a la. loolu yëpp dëgg la xam nga lu passé moom garaawul. waaw mais histoire la bàyyi nga bëri dañuy waxtaan rek. waaw xam nga waaw yooyu yëpp dëgg la mais gis nga Omar. Mm-hmm. àdduna boo ci nekkee yor xol bu set. Mm-hmm. dëggu mm-hmm. fonk say waajur. dëgg la bëgg Serigne Touba mu dëgg ci yow. bul ci billaahi mm-hmm. wallaahi bul tiit mm-hmm. mm-hmm. boo gëmee Serigne Touba mu dëggu ci yow nga liggéey say waajur amul sa benn mbokk bu la mën a xas amul sa benn dret bu la mën a xas wallaay dëgg la li la mës a am bokk nga sa njaboot bokk nga ko sa dret la parce que Serigne Touba loolu dañ na sant Serigne Touba man su ma tool damay sant Serigne Touba man nag sama Serigne Touba mooy sëñ Mouride Mbacke damaa taxaw biir taxaw ma biti taxaw ma góos taxaw ma càmmoñ taxaw ma ndeyjoor lam ma waxoon ba may dugg ci làmb rek loolu laa ko wax dama dama ne ko Mbacke mu porte bu mag laa duggee ci porte bu mag laa bëgg a génnee mu ne ma waaw waaw waaw yow sama sama doo sama taalibe sama doom nga. Mm-hmm. jàmm rek ngay am ci làmb booy dugg ak booy génn jàmm ngay am moo tax. Mm-hmm. fu ma toll damay man sëñ sëñ Mourou mooy sama sama àdduna. moo tax. Mm-hmm. matu ma bu ñu waxee ñu ne mbër kuus la jàppale ma sëriñ Touba jàppale ba ma àgg ndeysaan waaw suñu borom ak suñ tubaab jàppale ak sama jom ak sama fit ba ma àgg ndeysaan ndeysaan léegi baabooy di Mamadou mhm. Sow mhm. euh, foog ñu wan tuuti say jaar-jaar bu ko defee mhm. nag mun mën a continuer waxtaan bi ndax mooy li ma wax rek sa empreinte da nga ko marqué naa ne gëm sa bopp moo tax loolu yëpp nga ko doon def mais baabooy ni nga tolloon ak par rapport ak sa poids par rapport ak ni nga tuute woon tolloo woon na mbëri carrément lan moo tax nga am fit rek yaakaar naa ne bu ma daal luur yëpp kenn da nga ci daanul mais ñi des ñëpp daan nga leen te lan a lool loolu. waaw Omar xam nga liggéey da ngay am li nga xam ne boo ko liggéeyee da ngay gëm sa bopp. Hmm. man dama doon liggéey dama doon entraîné ci dun yi hmm. dama doon yeewu quatre heures du matin dem géej. Hmm. une heure deux heures ma dem ci dun yi ci dun bu ma paree ci dini wàcc si géej gi daw physique contact bu may ñibbi si waat daw boole ko nag doon nelaw boole koon di méfiewu hmm. lu bari loolu hmm. kenn ku dul sama loxo làmb dafa am ci xam dama see jaar ba ma wëlbati ko dama wëruwul kenn gëmuma hmm. kenn ku dul sama bopp sama mag sama xarit ñooñu laa gëmoon samay nit ñi nga xam ne ñii xam naa leen bu baax waaw moo tax euh, Omar làmb du gudd rëy rek Mm-hmm. làmb jom la. Mm-hmm. ak fit ak ngor. il mm-hmm. nga am ngor am jom fit. tey ñi ma doon dajal ñu si bari ñoo ma ëpp doole. ñi xë mën sax bu ñu woon si benn sax mën nañ maa dóor mais. courage bu may ñëwee. ak fit gi may ñëwee. ak jom gi may ñëwee loolu doo la may yàlla di suturaale. mais tey jii ñi ma ko bëri la ëmbee woon bëgg la gëm la aussi. waaw mais Baboye kan mooy Amath Dieng. ndeysaan kooku sama papa Mhm. kooku daf ma bëggoon yàlla tax def ma mhm. ci xolam kooku lébu la dëkk Medina defal lu ne lébu man man lu ne mu defal ma ko ci àdduna bëgg ma mhm. fonk ma yëg ma yàlla na ko yàlla xare àjjana yàlla na saraxam yàgg seen loxo kooku ak Njaga Caam mënu ma leen fàtte ak Omar Jombay ñooñu ak Famara Bodian Famara Bodian suma grand bi nga xam ne ndeysaan rakku jibi Bodian kooku suma nit la woon ndeysaan maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ak bas mii dem tey lu ne daj na ko ci man ci sama làmb ak magam franchement. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ok Baboy ban combat nga mos a jàpp ne. da ko bëri mu metti lool lool lool lool lool. mu metti mm-hmm. ñaari combat laa bëri sama combat yi nga xam ne. ñibbisi naa xam ne xam ne sonn naa dëgg muy man ak Xaadim Njaay ak man ak Ibou Diop. waaw pop pop daan naa Ibou Diop ne ba ma ñëwee ndox laa waaw sa combat ak Ibou moom. combat bu gën a neexee noonu man mosuma ko sax man mi doxee c'est benn jour. waaw boobu combat boobu bu ma ñu gisee daanaka ndox laa mu arrière ngeen dóor. ah tamit combat bu métti. parce que boobu combat Xaarim dama doon day dama si boppam premier combat bi. Yékini premier cinquante deux coups cinquante deux waaw mais. waaw mais Baboy. Ah. moo tax Gris Bordeaux ba nga daanee ñëpp ba pare daan non sa combat sax ba maa ñu si Gris Bordeaux moo tax nga tëb rek ne nañ ma jox Bombardier Sénégal yi ñëpp ne da ngay xaru. waaw Bombardier euh, dama ko nattoon xam nga man dama yor benn caay-caay ci mbir. Mm-hmm. damay natt mbir. Mm-hmm. Bombardier dana daje reefan. waaw dana daje reefan benn làmb bu invité woon foofu ñu bokk benn néeg toog. waaw ma ñëw ci wetam xool ko jàng ko. Mm-hmm. jël tànk bi téye ko. Mm-hmm. ne ko bilaay kaa ñu bëre mën ma foo may jaar ma ne ko sa tànk yi. Mm-hmm. Max Mbargaan ne ko saay saay la de lu mu la wax ne da ngay dem de. Bombardier ñëwaat dëju maamu maamu ñoom Njaga Jóob paama Jama Jóob maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. mu ñëw foofu ma topp ko. ne ko yow danañ bëre yow yow bu nu bëree la daan. topp ko rek mu dox ma tibb tànkam. yooyu yëpp tibb tànkam yooyu yëpp. Ah. fit bi laa doon yóbbu calme rek parce que yooyu a affaire mbër laa doon def waaw def ma dara damaa dégg tàng naa suuf sa mm-hmm. mais esprit bi rek laa doon liggéey topp ko nag mais dama gëmoon ni dama mm-hmm. naa ko daan parce que boobu yor naa ay luur yi nga xam ne maa ngi entraîné ñoom su ma ni gaynde Zak mi nga xam ne suma xarit ba mm-hmm. waaw ndeysaan raja rajaxee yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana ñoom Omar Yaasin boobu yor na wallaay ndeysaan yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin amiin amiin ñooñu ne ñooñu duñu sonn. dañuy mm-hmm. kontaan man mag xam nga ku ko teg sa loos di moom din kon war a a ragal Bombardier. zak moom macha allah nit ñi xamuñu woon boobu nit ñi xamuñu ni man ragaluma Bombardier. Mm-hmm. dama xeeboon naa sax Bombardier ndax ni ma préparé woon combat bi barke sëñ Bamba nag. mais ñu bëri dañoo day xaru damaa yàkkamti woon génn sama kër sax sama waa kër ba may génn kër dama oto bi ma doon sax dama doon ko toj parce que dama yàkkamti woon dem parce que boobu yëg naa li ma liggéey ci entraitement waxuma la sax affaire ñaan de mais li ma yëg ci sama yaram rek. ci mm-hmm. entraînement xeboon bi bëri. wóor na suñu mm-hmm. parce que combat bu ma ñoroon la waaw. Mm-hmm. ndeysaan. waaw combat bu ma ñoroon la. combat la ñoroon la. Ah, léegi ngeen bëre yàlla doxal bësul bësul. ñu bëre yàlla dogal ma daan ko muy nit ku baax nag euh, muy nit ku baax Omar nit ku yaatu xol. dañuy mm-hmm. déggante mag ñu dem France. mu mm-hmm. bëree mu daan. Mm-hmm. vraiment mais ku baax la. man Omar ak maam nga jaaxle léegi xam nga yow journaliste nga. xam nga léegi Pape Boye tànn boobu maanaam laaj Mansour Mbaye ndeysaan suñu maam jooju jour boobu. jour boobu jour boobu jour boobu dafa dafa dafa dafa yéeme. maanaam ñu bëri di ko tànn lii mënul maa ngi ñëw maa ngi ñëw si la ilaha illallah la ilaha illallah ba ma ñëw di jël dara ba maa ngi dégg mu may xoole la ilaha illallah mais loolu <laughs> Baboye boobu ñu bëri gëmuñ ne yow àdduna mënul dox dox ba nga daan Bombardier boobu ñàkk xam la xam nga nit ki boo ko xamul woon mhm. moo tax nit nga xam ko rek boobu boo xoolee sax si biir làmb ji man ak suma xarit bi ñuy wax Ibu Diagne ci biir géew bi ñu ngi dox mais heure bu ñu doxee rek mu ngi def guitare mu ngi def loxo bi comme guitare mooy xamoon na ñu ñun dinañ ko guitare parce que lu ñu mhm. travaillé lu ñu préparé la woon xamoon nañ dañuy jël tàng lañu ko mu toog waaw moo tax euh, làmb dañ koy waajal après ba nga bëri que euh, kii. Bombardier ko bëri Yékini laa bëri laat mu daan ma. Yékini. waaw Yékini laa bëri Yékini da nga ko préparé kon ni nga ko préparé ak Bombardier wala qu'est-ce qu'il y a. non naa ko. si jom ci hmm. lépp c'est que dafa dafa saay-saay nag. ba pare hmm. xam nga rek. doonoo xawoon na bokk ay ay ay côté daal ay ruq. Hmm. ta xam nga lu bëri daa xewoon foofu ci histoire foofu ci biir. Mm-hmm. affaire ruq yu bokkoon ak yooyu xam nga mais. Mm-hmm. moom nit ku baax la wax dëgg yàlla ku ma la daf ma respecté man jox ma cër. am na combat bi nga xam ne ba muy taxaw. Mm-hmm. boobu maa moom ñu nekk France àndoon ak ndam si yàlla si Mbaye Zack Diop. yàlla na ko yàlla yéen xare ko àjjana. yéen bokk benn bi ñu bilaay ndeysaan Omar ku baax ku bëggoon sportif ku xol bi laa biir Mbaye Zack Diop. boobu ñu ngi demoon France ba demee France ñu ngi fanaan man ak Yékini. keroog yi ki ni lu mu añee sax sama benn rakk moo ko toggoon indi ko mu ne ma musuma lekk lekk ma yow dinaa lekk sa lekk foofu nag nan fasante coloré ñu ngi toog di fanaan mu xëy suba giri hmm. Bordeaux ak Bombardier di bëre hmm. ma ne ko ma yeew suba ne ko man de gént naa giri Bordeaux daan Bombardier ñu ne ma hmm. man a giri ñooy bëre mu ne ma loolu mu ne loolu moom dafa gis ni Bombardier mooy daan ma ne ko déedéet li ma gis boom giri Bordeaux laa gis mu daan ñu ne ma man ak giri Bordeaux ñooy bëre Mm-hmm. après ba affaire bi jeexee mënu ma dëmm nga rek ma ne ko yow yaa ma gën a nekk jëm na. ba ba baaba nit ku baax la wàccal wàccal wàccal kii bi. léegi ñu ñëw sa combat. ñu ñëw sa combat ak. Balla Beye wër na ko ndomba waaye. waaw léegi Baboy. Baboy uh-huh. combat bi dafa nekkoon sa combat ba pare nga yàkkamti Baboy la moo la dal. la moo dal nga yàkkamti rek mooy li nga xam nga làmb. Euh, combat boobu lu si gën a joué lu si gën a joué si combat bi. scientifique mm-hmm. bi ci la bokk ci la lu ma gën a. nax seen parce que gis nga komba bi Omar mun naa waat Serigne Touba dama doon wër ndomba ñu ëpp jikki nii di leen guddi ba ci kaw di hmm. ñëw suuf mais combat bi boobu c'est la première fois ñu ñëw sentig c'est la sentig bi nokk nekk bees hmm. sóoraale wu ma ko préparé wu ma ko aw ma mais bu nekkoon tey ci suuf la woon wala dara kon waxatuñ ko mais aw ma teg ci yu ki da moomu sut hmm. relance bi da cee joué ak xam nga rek bés bi nga xam ne waroo koo jël mais combat bi lu ma ci def bari na li ma ci entraîné bari na li ma ko waajal bari na. Mhm. te dama ko gëmoon combat bi parce que Yékini gëmuloon ni sax man mun naa ko song ba koy wër noonu. dëgg la parce que xam-xam ah, xalatu doon mais nag danga ko bett loolu ci moom danga ko bett waaw dama ko bett danga ko dama ko sàcc mais man jàppoon naa ne man en tant que en tant que en tant que ci làmb waaw jàppoon naa ne mhm. li nga bëre bo euh, bombardier boo euh, calculé naan da nga naan daggee tànk bi mais boo bokkul ah. ak bombardier moom bërikatu tànk la te dafa yokk ba mu jëlee tànk bi da ko dawale ca gannaaw. non dafa dajeeg yow ba ma dafa dajeeg yow dóor la tànk. waaw waaw mu xam ne gën nga ko jege mu bàyyi laa ginnaaw gi nga wër ko nomba. voilà parce que moom bërikat la dafa bëri foofu lu bëri ci tànk xam nga ma tànk ëpp amul bëriwu si lu mu ciy bëri ci tànk. mais kee kee dafa bëri ci tànkam ba ma di buusal xam nga tànk boo koy jël nit di ko buusal rek day indil borom tànk problème mooy ba muy mooy bëri comme sama combat ak yow rek. non àggaguñ ci combat ak yow man ak yow. grand man damay say liggéey laay def ak yow waxuma ak yow dara léegi Baboy nga jóge fa nga jóge fa. Mm-hmm. Euh, Gris Bordeaux ne nañ ma jox Baboy nañ ma jox Baboy maanaam di la ci làmb ji fu mu nekk mu topp la fa nañ ma jox Baboy. ba pare nga baal li léegi yow topp boobu chaque jour yaa ngi koy nax naan bu jotee dina yomb bu jotee dina yomb da nga ko nax wala lan la. waaw xam nga Gris Bordeaux mënu moon échec si moom mm-hmm. wallaahi mënu moon daan parce que lu tax mënu moon daan moom xamu ko woon ñu bëri xamuñu woon mm-hmm. mais li ma jencoon sama biir xol la li Moustapha defoon ba may jóge Italie mm-hmm. loolu dafa ma metti woon ma jenc ko ci sama xol ni ah, plus ah. tard dinaa ko fay ci Moustapha wala ma mm. fayu ko ci beneen léegi nag ba nu sampee Gris Bordeaux mu nekk seen point ma yoot yootu bukki xam nga yootu bukki mooy lan bëgg dara yàkkamti bëree yàkkamti dajeeg loolu. Mm-hmm. nga bàyyi mel ni ku ko bëggul xam nga ko toggal la yàpp bu neex. waaw dafa la yàpp bu neex ganaar gu neex nga war ko lekk mel ni ku ko dumboy fe mel ni ku ko bëggul. te fekk na mm-hmm. ganaar gi nga bëgg. noonu laa joué ak waa parce que boobu am naa expérience làmb am naa expérience bu baax ci làmb. xam naa face ay saay-saay nanu ci làmb danoo mën làmb. Mm-hmm. teel a mën a préparer mbër man tamit ma dumboyu leen. li may leen dumboyu mm. man tamit bu paas bi def maa ngi ko def maa ngi leen yoxosu ma nit. di mm. préparer bis ba may ñëw di bëre. di di di di fekk Gris Bordeaux di ma fekk di ma jaxasoo boobu fi ma jógee bu Gris xamoon du ma jege. ndeysaan. boobu jóge naa fi nga xam ne. ñeneen mhm. ma demal rek jàkkaarloog moom bis boo jàkkaarloog moom rek na ngeen laalante rek. Uh-huh. nga dummuy waa waaw waaw ma dummuyu leen fekk dummuy bu ma leen dummuyu. bëgg mhm. yàkkamti naa bëri ak ñoom mais bëgguma leen ko won ma ah. yoxusu nag di dem di préparé wu. ñu mhm. bu ma Gris laajee ba bañ. Mm-hmm. dem di préparer di di entraîner yokk sama entraînement. Mm-hmm. yokk fu may dugg. Mm-hmm. dem nag ci ma ñaakaar. ñu xamal ma li may xamal wax ma ne wax bi jotagul bu waxtu bu jotee rek dinañ ko noddu. ah ba bis ba jotee nag ba ni mu ne ma demal nag. <laughs> demal nag bu xale bi laajee nag tàllal ko loxo nag. ma tàllal ko loxo nag. rek combat bi waaw combat bi taxaw nag ah, ma waaj ko. boobu moo tax moo tax nit. ni ko waajee musoo ko nit day nit nit day ànd ak mbokkam hmm. nit day ànd ak nit day ànd say mbokk say nit hmm. ànd ak hmm. baaba maal ndeysaan di ñaanal mbasu ñaa yal na ko yàlla xare ajana di laay alpulaar ah, yëpp jàpp ci taxaw mbasu mbasu ñan mbasu ñan laa wax waaw ndeysaan mbasu ñan baaba maal ah, El Hadj mooy nga xam ne mooy président dina écurie am na sëñ Amadou Mbaye Diagne ñëpp samay mbokk xalpulaar yi ah sama mbokk séeréer yi sama ko mm. yaay lébu gi ñëpp taxaw ci combat bi jàpp ci léegi ñu ne top mais Baboy Baboy Baboy fii nan la def balaa ñoo ñëw ci combat bi ngeen jàkkaarloo ngay sotteeku Gris Bordeaux di sotteeku lamb ji nan la lay def en fait en fait naka la lay def waaye Omar champion nga xam nga bés bis boo ko moomee day neex ci xol. dam nga boo entraîné ba woon koŋ waajal ba woon koŋ. da ngay mu di arbitre sifflé na da ngay xam ni am ni nga doole. ni te borom nga te borom fit neex day neex a dimbali. <laughs> borom borom fit borom fit a neex a ngemb. bilaay wallaay borom a léegi top arbitre sifflé na. Oh, baabooy baabooy yaram daw na làmb làmb dafa neex. Mm-hmm. ndeysaan lii boo ko seetaanee sa yaram day rek àdduna du dara te xoolal ndeysaan Gris Bordeaux respect bu ma jox. Mm-hmm. daf ma jox cër fonk mu ma. Mm-hmm. li ci wax moo tax àdduna boo ci nekk rek lu rafet. waxal lu rafet ëllëg tax tey jii respect bu ma jox. bëri na sax ñi nga xam ne joxuñu ma ko mais. maa koy encouragé di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm nit ku baax la nit ku baax la xol bu hmm. rafet la yor nit ku baax ku xam àdduna waaw ku am yar am teggin ku intelligent aussi intelligent waaw non très ah, xam na moom nante la xam na ñaam nga nante la ah, nante la léegi ndeysaan Baboy nga jóge fii ñu joxaat la Yékini hmm. Baboy buñ balaa ñu ak foofu sax balaa ñu àgg foofu Baboy naka nga préparé ak Gris Bordeaux mooy yow ba nga gisee gis naa Papa Mbaye Guèye gis naa Moustapha gis naa euh, euh, euh, comment ça va Moussa ñu ngi. ñoom Sidi Saabane. waaw ak ñeneen ak waaw boobu boobu que am na yëfu jàmbur sax am na yëfu ah. jàmbur yoo naa. après am naa mais ba combat bi jeexee Baboy dañoo gis sa kër fii Cambérène. Mm-hmm. ay ay mm-hmm. néegu sëriñ. ay néegu sëriñ. yëpp génn. Baboy xam nga combat boobu dafa amoon lu ci laxasu. am ñu doon wax ni mënuma ko daan. Mm-hmm. ñii ne ah amul fu koy jaar. sama papa Mbaye Gueye mi ngi koy na ko yàlla dafa jàmm waxoon kii mbëru loxo kese la mënul daan Gris Bordeaux. Hmm. xam nga Gris xeeb ma. mais boobu hmm. ñoom xamuñu ko bëreel moo bari. Uh-huh. Hmm. combat ma ko bëreel moo bari ñi ma ko bëreeloon moo bari. ah sama samay mbokk waajal ma nag. ñoo ñoo gisoon foofu ñëpp tey muy Haalpulaar yi. waaw ay Baaba Maal ñu ko yónnee ay El Hadj Ndiaye. Mbassouna. ñu jëli paa yi ne yëpp ñu indi leen. waaw kon ñëpp. toog wane ne bés bi nag Ndakaaru ak Fuuta la nag. ay buur gi làmb mën pexe làmb hmm. <laughs> xanaa amoon am na ñuy dem si sëriñ toog jooy eh, def yow sëriñ toog di jooy naan <laughs> nee na bu ma jàppee daf may naan mosoo ko def <laughs> non non ba ma defee giri moom dem naa si sama benn sëriñ ñu toog di waxtaan ah. ba si yàgg ma ne ko waa Ndakaaru gi yëpp nee na hmm. alxuraari xamuñu dara xamuñu dara ñaanal mënu leen ñaan xamu leen ñaan. mu ne ma sëni lan kan la loolu ñooñu waxuñu dëgg. ko nee bu bés ba jotee dañ may dóor ba ma dee. dugal ma ci kees yóbbu ma. mu ne ma su àll jabi. su asamaan laalul kenn mënu laa daan bés boobu. moo tax eh, ñaan am na mais ñaan day ànd ak fit ak jom. léegi après ba nga jógee ah. ci combat tax automatiquement rek nga bëgg a jël Yékini waaw boobu Omar damaa sentiroon ni làmb mu ngi waaj jeex ci man te am na avenir yu ma war a defar gisatuma dara nag damay gis encaissement lu ma fay xaalis ma jël bëre pour mën a préparer parce que dafa am samay papa yu ma gisoon ci làmb ñu jaar ci amoon succès bu ne te yàlla dogal ñu bàyyi làmb ma gis nu ñu dundee mu metti ah. tey même bu dee sax sa benn baraat na ñafe ko ci am ko ci loolu baax na même boo jëlee sa benn baraasa nga am ko moomal ko sa bopp tey boo bàyyi làmb nga ne lii kat. Hmm. man maa ko gañe si làmb moo taxoon hmm. mujj gi nag dama doon bëree dinaa def nag li ma war a def mais la ma doon def cent cent dama koy wàññi bu nekkoon cinquante laa damay def trois wala deux li si des nag ma def ko si sama avenir. waaw eh parce que boobu yax yax yax ya mu ngi ñëw mu ngi doog a ñëw hmm. ci làmb te man maa ngi waaj a génn daanaka amatu amatuma lu may prouver wane naa lu nekk ci làmb léegi nag li hmm. may def mooy dama koy lijjanti sama fit sama jom waaw hmm. yenn yi sax des fois ma defar ko sama bopp defar samay butéel yu bari indaale des fois hmm. ma dem ray samay xar defar samay butéelu saafara indi waaw suñu tubaa ñaw samay téere parce que làmb Omar day toll fi nga xam ne boo toppee di financer financer da ngay dem ba bëre ba bàyyi bëre boo ci am sax fuddi parce que arrivé na mbër yi bari parce que lamb yow xam nga lamb financement bu ci am Mm-hmm. naan dafa metti waxuma lamb six mois sept mois ñi nga yaa ngi lekk yaa ngi naan yaa ngi sarax yaa ngi def lu ne yaa ngi ànd ak ngi ànd a defal ñi bàyyi seen njaboot ñi bàyyi lépp ànd ak a des ci ñoom mais mm-hmm. Mm-hmm. lii lu lay jox lii lu mu lay fàttaliku lii lii dafa neex Omar lii maag boy kere Omar gis nga ba ma Moustapha Gueye Mhm. képp ku képp ku bokkoon face mënatoo ma daan. loolu lu ma dis décidé woon sama bopp. dama ko décidé woon sama xol. Mhm. ba ma mës a faa koy daanee ma ñëw suñu kër toog. Mhm. ba trois heures du matin ma ni Ibou Diagne mu naa ma ne ko billaahi ba ma may bàyyi làmb di tekki ngemb. face du ngemb mbër mukk ba daanati ma ci àdduna. ndax li ma daan xam naa lan la. te loolu doon ma ko daan. bés boobu laa ko dogu te yéen dogal na ma suturaal na ma ci faas indi nañu Cheikh Mbaba indi nañu Serigne Ndiaye. ñun ñëpp il nanu Mbaye Diouf ñun ñëpp mhm. ma daan leen kon santaat naa yàlla bu baax Baboy mos nañ la suspendre ci làmb waaw mos ma suspendre ci làmb la moo waraloon dégg naa sa mag moroom bëri boobu rombalax la woon ak Pape Cissé mhm. rombalax daan Pape Cissé ma tëboon xam nga rek boobu affaire làmb la affaire xale xale yooyu comment après ñu aj Mm. léegi Baboy ñu jox la revanche ak Moustapha Gueye. Baboy mm. pare ko ba taxaw wol boobu da nga entraîné am mm-hmm. doole am fit. Mm-hmm. am gàllaaj am mm-hmm. sañ-sañ. Moustapha Gueye ñëw ne fii taxaw yow nga ne ko taxaw lu loolu. gis nga. wala boobu dafa xam ne yow ah, pare nga yow. non non combat boobu yàlla moo ko defar. yàlla moo ma defar man moo ma defar ci bés boobu. Mm-hmm. bés boobu indil naa ay ñaankat yi nga xam ne ba une heure du matin deux heures du matin jotee benn ñaankat bi dafa génn jóg yuuxu kër gi yëpp yeewu mu ne suba néew dina am mm-hmm. mu ne suba néew dina am ma ne ko luy néew mu ne ma ki ngay bëreel du taxaw ginnaaw la lay wan mais bul ko dóor bis boo ko dóoree day faatu mm-hmm. billahi lazi la ilaha illallah dëgg la ko waxoon mu ngi dund ba léegi mu ne ma mukk mu ne ma làmb ji mu ne ma mu ne ma du am ki ngay bëreel ginnaaw la lay wan bul ko dóor jàppal tànk yi ci ginnaw rek nga daan ko nga dem loolu nga koy daan moo lay dimbali moo tax ku ne ñaan amul da ngay wax lu la neex. làmb doy na damay dem damay dem ci combat boobu xamoon naa ni combat noonu lay mel. barke Sëñ Tuubaa. ok xamoon naa ni combat Moussa Gueye noonu lay mel. loolu loolu. Moustapha Gueye yàlla ba yàlla may la suñu borom. may la xel mu baax ba nga liñ la waxoon nga. def loolu parce que tey bi loolu amoon tey. way la bi nga xam ne dootul dañati ci àdduna maa ngi dégg ci combat maa ngi dégg sa Pa Mansour Mbaye ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax maa ngi dégg mu ah, jërëjëf Balla Bèye mënul nga ko door ci gannaaw waaye dóoroo ko vraiment loolu xam nga mooy lu rafet moo tax ah, suñu papa Diop ñoo ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ñaanal gudd fan ak wér rek lu ne def na ko ci réew mi lu ne def na ñoo koy ñaanal gudd fan ak njabootam ak waa këram ak njabootam yëpp nag waa këram dëgg la baaboy nga jóge fa après fin carré du ñëw fin mhm. fin carré jóge nga jóge ci mhm. après il paraît que lamb mu sosoo ba léegi benn xale mu saa daan budul Balla di Balla 2 waaw loolu la yàlla dogal ok sa euh, combat Balla waaw sama combat Balla Gaye boobu damaa toog sama kër waaw Balla Gaye di bëri Modou Lo Mm-hmm. fekk benn maire seetkat mu ngi woon sama biir kër. Mm-hmm. mu ne ma yëg gis naa sa combat bu taxaw ma ne ko sa combat muy taxaw mu ne ma waaw waaw mu ne ma ne ko luy loolu mu ne ma sa combat day taxaw de. komba mm-hmm. bii am nii tey boo fa demee ki daan di nga bëre moom ma ne ko loolu nu mën a nekkee yow kuy daan loolu mooy daan Balla Gaye nga defar Balla mooy daan. mu ne ma Balla mooy daan. man maa la wax fii si seen gis naa ko. bu ma demee làmb ja di nga am. combat boobu maa ngi ci fin carrière ma ne ma dem ko ma ne ah kon ba xaaral ma ñëw dem lamb ma ñëw dugg si lamb ja rek daal di fekk Balla Gaye taxare ma saago ko mm-hmm. xaw ma sax lu ma ko def loo ba ma ci kaw mm-hmm. trim laa jóge rek ñu ànd ak Modou Lo ñëw ba ci Balla rek saago ko mm-hmm. Balla Gaye ne ma yow di wax commencé wax wax wax ma ne ko dara nga ne ma boo pare ci yow laa jëm man ko ay ca maa ngi lay xaar noonu la sama combat Balla Gaye taxawee combat bi jeex ma ñëw saat di yëngal Balla Gaye fekk ma fa ñu yëngal. Hmm. Ndakaaru bëgg ko. ñu jox ma xaalis ma jëm enquête sax am na quatre-vingt millions ñu ah, jëm fin carrière. kon nekk nga <laughs> soixante millions wala soixante millions macha allah. waaw yàlla na la jóge jàmm ci ah, mhm. ah. boobu dama gis. farataaloo ko quoi parce que boobu yaa ngi leer yaa ngi wootu di làkk ay tubaab yu kenn xam du ma la fen du ma la fen. waaw billaahi lazi la ilaaha la de guerre presque sax entraîné wu ma. Mhm. amoon na suma benn xarit bu ñëwoon suma benn xarit. Mhm. chaque guddi. Mhm. këram laa doon dem ñuy toog di waxtaan ba quatre heures du matin. combat ba mu desee quinze jours. laa amoon sama benn yaay bi nga xam ne ku mën a seet sama mère bi yal na ko yàlla xare àjjana mère bu mën a gis. rek mu woolu ma. mu ne ma laay. yow combat bii ngay bëre dooy na waar de ki ngay bëril am na gàllaaj de. Mm-hmm. ma ko ah mu ne ma kii ko war a gën a de. yow yaa ngi toog mm-hmm. defoo dara ma ne ko man de pour ma jóg dem fenn sa yoonam mu ma. kaay nag ma wax la benn affaire benn sarax bu ndaw boo ko defee. Mm-hmm. coow mooy bari. mais du am ndam. même buy am ndam dañ koy dindi du am ndam. du sonn mu ne ma ba la sëriñ waxee jëndal lii sarax bu ko def. bul def dara wutal benn pitaxu àll. bu bisu combat ba jotee booy dem nga génne combat boobu bëri na butéel yu ma yóbbu billaay wallaay tit leen laa ko jëndee sungu sit sol ko samay butéel yóbbu ko seetaan. ndeysaan kon làmb day toll foofu. moo tax làmb day tam bi nga xam ne xanaa man làmb des fois fit da génne ci lu bari. Mm-hmm. boobu la de guerre tubaarakàlla kaar entraîné na am na doole am na gàllaaj am na fit mais xoolal nu làmb ja demee lay jaxase moo tax tegtal làmb tegtal la. Mm-hmm. mën nga indi lu ne say bagage ba fees tell nga ñëw si géew bu ñu tegtal la. <laughs> toxal la waaw làmb mhm. dafa dafa dafa doy waar dafa doy waar dafa mhm. dafa bëri ndoxtu làmb mhm. tànk desul une semaine ñu ne maa moom làmb ji làmb day ba ci biir géew ñu nangu ko ci yow waaw mais nag am na ñi nga xam ne bu la laala nee automatiquement ba ngeen bëri automatiquement après bon combat bi gaaw mais yow xam nga ne daan woo mais da nga jug rek def ah. fair ne daan na ma mais après ba nga demee ci bekkaay mais coow sama rax la naka dem ci mais daanuwuma. waaw euh, xam nga loolu mooy dëgg nit boo nekkee ci dara. Mm-hmm. doon si am temps di dem di dem ba nekk fin carrière. Mm-hmm. ngay bëree bul ko salti mm-hmm. parce que bu ma nekkoon di bañ foofu ci biir géew bi. ñu indi ay coow te man daanaka li ma desee si làmb bëreetul rafetul. moo tax nag man di ci télé ne bekkaay xam nga ni lii. jël amu ci waaye nag maa ngi koy hmm. félicité dem te xamoon hmm. naa ni danañ ko dindi parce que jël amul mais hmm. loolu moo gën a rafet parce que nit boo nekkee si dara ba waaj a jeexal da ngay def nu rafet boo ko defee rek yàlla rafetal sa yoon waaw dëgg nga rafetal ko ndeysaan mais après sans verdict la mais baabooy après ça fait carrière nga toog du war a nees nga gaañu si tànk après nga def na waaw après ma toog Mm-hmm. ma bëreeg nees. Mm-hmm. après ma am blessure. après ma toog ma ma toog. Mm-hmm. ba après ñu jox ma bàyyi ma njoon. non nees sa kamaa nees après jol ñooñ mais Baboy. waaw ah. ak fin ak. indi ma répété BKM bi Baboy ñu gis sa nekk sa fee kere daan jëli bu rëy. daan jëli bu rëy mais ki ma bëggoon mu wone ko baabooy bii bi daan nga bàyyi mu njoon daan ko jël bu rëy daan ko jël boo xamante ne kenn xalaatu ko ci sa àdduna maanaam tey mbër bëri na mbër bëri na ba bàyyi bëre ci fin carrière am ci fin carrière mm-hmm. donc vraiment mu am ci ndam te loolu lu jafe la ñu génn ñëpp nag ci mm-hmm. mbër yi yëpp yàlla suñu borom moo dogal nag dañuy am defet kenn mënu ci dara. baabooy ba nga dundee ak ba daan baama ñoon bëggoo sax gën a bëgg bëriwaat ak aas bi nga am ak nga daan comme si que yow amoo quarante cinq ans. Mhm. loolu sant yàlla la. gis nga euh, liggéeyal waajur mhm. du niil ci àdduna mhm. liggéeyal waajur da lay toog ba boo seralee xolam Mm-hmm. te muy dëgg rek te yàlla tax. bu liit mm-hmm. bul ragal bul mm-hmm. raf-rafi. lu nit yor ci àdduna gëmal ni sunu borom dina ko indi sa loxo. ndeysaan. noonu laa sama xol noonu la mel ba tey jii nii du mënuma tiit dara sama àdduna. ndax am naa sama ngërëmu ñaari waajur te loolu rek laa doon wut sama àdduna. am naa sama ngërëmu waajur bu góor am naa sama ngërëmu waajur bu jigéen du damay bàkku nag. yàlla rek moo tax may wax. kon mënu ma woon tiit. te ba may bëre bàyyi ma ñëwoon liggéey naa li nga xam ne. xeet mhm. naa sax ko raw baay mhm. parce que làmb day toll fi nga xam ne soppe day tax nga góorgóorlu noon day tax nga gën a góorgóorlu dëgg la daan yi nga xam ne mhm. boo doon dee waroo ko ñaq bu jaree sa alal dem na sa alal dem bu jaree sa doole dem na sa doole dem bu jaree sa ñaq dem na sa ñaq dem parce que boobu li yàlla def rek loolu la mën a def lan mooy waral loolu lan mooy waral loolu nga am combat yoo xam ne combat la la doo ko bëgg perte la moo yore loolu. waaw xam nga am combat yi nga xam ne da ngay dajeeg ay say noon. say noon ay waxkat. waaw mm-hmm. noon day yokk nit jom ñoom. Mm-hmm. day tax nit góorgóorlu bu taraanga. Mm-hmm. noon moo baax nit bu amul noon sax na tiit ci boppam. parce que ay noon mooy tax nit am jom. tey loolu dafa am beneen gëdd bu mu lay joxaat ci biir géew bi. dafa am beneen fulla affaire man ba ma ba ma est-ce que xam nga ni combat boobu ba ma jógee ci signature bi damaa tàng ba départ dem kaw la ba ma génn ci signature bi dellu soituma sama kër noonu laa continuer ak sama oto dem fanaani mbuur jóge mbuur dem kaw la hmm. ngax bis bi lu ma jaraloon ma fonk bés bi def ci hmm. nag lépp lu ma ci war a def lu ma ci war a def lu def naa ko ci barke sëñ Touba babooy ak waa ak hmm. waa juróom babooy ak waa juróom il paraît dégg naa sa moom euh, wax dëgg yàlla moom li mu gën a hmm. bëgg moom balaa mu boo demee ak foo mën a dem ci àdduna da ngay fëgg hmm. yaay banaana pom hmm. yàpp te amoon nañ ne fii sa combat Gris Bordeaux ba nga bëree ba pare mu ne moom xaw ma dara man saa yu ma ñëwee damay ñëw rek ñu ne baaboy moo indi lii baaboy moo ma jox lii daf may toog ba guddi damay yee naa ma yaay jugal nga lekk yaay jugal nga naan yaay xaalis a ngi nii loolu lu am solo yaakaar naa même bu dul mbër sax lu am solo la ci diggante nit ak waajuram. Omar xam nga waajur. Mm-hmm. kenn mënu koo fay. Mm-hmm. loo ko defal sa jarum nga xay ko jarum nga wax. parce que mm-hmm. waajur ñu koo fay. ndax sunu waajur bu neexoon ñu duñu dund. bu neexoon mu laggal ñu bu neexoon mu pattal ñu. loolu yëpp defuñu ko. mu ñu téye yar ñu def ñu ci lislaam def ñu ci diine def ñu ci lépp. kon loolu ko war a gën a góorgóorlu dañ doon góorgóorlu rek. Mm. mais waajur tey boo ko sotti noonu ay jamaa taxul nga dab ko li nga defar mais nag fonk waajur dafa am solo tey boo mm. xoolee bari bëri mm. ci foofu noonu rawante waajur man nag musuma am avance ba jël sama avance yóbbu ko banque mm-hmm. dama doon joxe sama xaalis ba sama ba nit ñi di wax ne yow de doo am sax kër ndax loo am jox ko sa fami ma ne ko waaw mm-hmm. mais yàlla bu lay dimbali wala boo defaree sa waajur bu la yàlla di indil ay xewal doo xam sax fu muy jógee dangay ngay jékk saa hmm. gis li nga xam ne doo xam sax fu mu jógee man suma yaay suma xarit la sama hmm. papa suma xarit la hmm. mu génnee àdduna lu ñaan yàlla yàlla defal na ko daf ko da ñaan yàlla génn àdduna ñu delloo ko dëkkam muy Hamadi Hunaare di salmino noonu bandira xam naan yëpp yàlla def na ko yóbbu nañ ko ba ci dëkkam jox ko suñu borom mu nekk ci Hamadi Hunaare kon loolu la doon ñaan yàlla njabootam defal nañ ko ko sama waajur bu jigéen mu ngi fi maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér may ko waajur ñëpp may ko sa waajur ndaxte hmm. man am na li nga xam ne nit balaa nga ko xam da ngay dem ba këram. Hmm. man dama laa fonkoon bu yàgg mais lu tax ma gën la fonk. man ni ma mel noonu nga mel sama waajur. Hmm. xam ne dama ko gis ci yow. loolu daf may intéressé man dama bëgg nit ku fonk waajuram. nit ki nga xam ne même bu demee fenn. bu jëndee dara man damay toog cibre des fois dañuy ànd am ay business yu ñu doxi bu nu ñëwee damay gis nga yor mbuus nga jënd dara. balaa ngaa lekk sa néegu yaay nga koy dugal. loolu bu ma ko gisee bu ma lay wan gannaaw noonu sama yaram day daw parce que damay xool ni sama yaay nii laa doon def ma koy fekk muy toog ma koy di ko defal loolu loolu doo ko rëccu moo tax nit ñi hmm. nan dellusiwaat seen xel xam ne hmm. waajur amul fenn te nit hmm. boo sa adduna xol bii nga yor bul yéene nit lu bon bul ak koo mën a doon bul yéene nit lu bon li nga yéene sa bopp yéene ko nit ki billaahi wallaay boo ko defee ku la fexeel ñàkkul dem fu ne dem ci ku ne barki sëñ mm-hmm. Tuubaa du la mënal dara mm-hmm. waaye biir bu xolam seddee mm-hmm. kenn mënulu la dara man nag sama force mooy sama yaay mon père ma famille ñoom laa yéen a jàmm amul tey sama famille ku ma gis man du ma sëgg dëgg amul ki nga xam ne ki ne jaar naa fenn fi nga xam ne yow boo taxawee rom ma di nga ne ah ngàcce ngalaam kon loolu rek day na sant yàlla Ba booy ba tax euh, yow kontaan naa ci yow ci invité bi ma la invité. tey moom doo tàggoo maa ngi gërëm sa soxna. Euh, di gërëm sa soxna bu baax vraiment di ko sant di ko gërëm. te xam naa nit ku baax la nit ku muñ la. lu ku see la yàlla na leen yàlla jàppale. yàlla yàlla sàmm yàlla na ci barke yu ñu soppeeku moom succès de soppeeku mu succès wala mbër laa woon. bàyyi naa bëri déedéet tey la gën a bëgg tey la ma gën a jàppale. tey la mm-hmm. gën a toog. waaw mm-hmm. tey la gën a fonk tey la gën a mhm. def lu ne ci àdduna waaw mhm. man daal fu mu doon daanaka pour man defatuma dara sax sama kër aw ma sama jot dé xaw ma sax la xew ci kër gi mooy def lépp damay génn mooy def lépp Babo looy tàggoo ak waa Pikine loolu tàggoo waa Pikine parce que ñëpp ngi lay seetaan looy tàggoo ak waa Pikine waaw waa Pikine maa ngi leen nuyu mhm. di leen ziare di leen jaale suñu frère Bas Ñang di ko jaale mun Ñang di nuyu suma nit ñi nekk foofu yëpp bàyyu ma kenn di suma rakk yi suma xarit yi ñëpp maa ñëpp di leen ziar maa ngi nuyu ñëpp Omar maa ngi nuyu mbër yëpp di ziare ñëpp. Hmm. maa ngi lay nuyu bu baax di la remercier yow nit ku baax nga parce que gis naa li ngay def nii di si man dong gis naa keroog nga def lu rafet ci diggante Waly ak Pape Diouf loolu képp kuy doomu Sénégal muy nekk nit ku baax rek kontaan na ci gis na ni ngay dindee nit ñi di woote di wax lii mooy àdduna àdduna da ngay yor xol bi yaatu xol bu rafet hmm. yéen a ñëpp jàmm yéen a ñëpp am teraanga di nuyu ñëpp hmm. di gërëm ñëpp di jaalewaat Aziz Ndiaye fi nga xam ne mooy sunu kilifa mooy sunu xarit nekk sunu lépp ñu ngi koy jaale gorom boobu gaañu te allah bu suba bu ma jegee ci dëj moon ñang bi dana fa dem jaale di nii suma yaay booy sama yaay bi ne ci kër gi di nuyu sama séeri di nuyu iliman suma xarit suma dooma ndey lam dooral suma xarit nga xam ne waaw moom suma frère la message na gars yi ñëpp ñu ngi bëggee ñi ñëpp seen xol sedd na ñi ñëpp kontaan na ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis nañ affaire yi message yi ñu ngi lay ñaanal jàmm yow. salaam yow mel ma sama xarit. kan waaw Xaadim sama xarit. waaw incha allah princesse